te moom itam deesu ko tëñaxu waaye des koy jàng ci xam-xamu tawxiid bu ñaareel ba nee na mooy al islaam te mooy nga jaamu yàlla tabaraka wa taala ci say cër moom itam deesu ko tëñaxu waaye dañ koy jàng ci xam-xamu fiq bu ñetteel ba ci ndigal yim bëgg ñu tënku ca mooy al ihsaan te mooy rafetal moom itam ñu koy jaare ci jàng xam-xamu tasawuf bu ñeenteel ba mooy ñu moy ci alquraanul karim juróomeel ba mooy ragal yàlla juróom-benneel ba mooy sàkku xam-xam ak jëfe ko ànd ak teggin juróom benn yooyu nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi digal dafa wax ne li tax ma digal leen gëm yàlla bëgg ngeen jiital ko ndax ko gëmut yàlla ab xolam yéefar lay doon te kéefar amul solo li tax ma bëgg ngeen di sax ci jaamu yàlla itam ku nanguwut jaamu yàlla ci ay cëram ab kàccoor lay doon ndax waxtu nekk muy def luñ ko digalu li tax ma digal leen al ihsaan te mooy rafetal itam képp koo xamante ni jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla daf caa sedd mbindeef yi bañ koo bàyyee yàlla bàyyee yàlla rek am gistalkat lay doon li tax ma digal leen ngeen mooy ci alquran itam alquranul karim ku ca nguyut réer nga réer goo xamante ni lam lay jural mooy ay jooy yooy dëkkee àdduna ak àllaaxira yàlla ñu ci yàlla musal li tax ma digal leen ragal yàlla itam te mooy tënku ci ndigal ak bàyyi tere ku nanguwut a tënku ci ay ndigal te waxtu nekk ngay def tere yi te tuuboo ko ba faatu fekk la ca perte nga perte gu biir li tax ma digal leen ngeen sàkku ji xam-xam ak di ko jëfe boole ko ki teggin itam ku dëkkee ak réer te nanguwoo sàkku ji xam-xam ba mën a jëf-jëf ju baax te boole woo ko ay teggin ba faatu fekk la ca sànk nga sag dund ndax ci teñaxu nga ko jeexal te sànk ak dund wala yaasu billaah yàlla na ci yàlla musul yooyu mooy juróom-benn yi ma leen di diggal loolu leen di jural itam su ngeen ko jëfee ak ngeen ñàkk koo jëfee juróom-benn yi ma leen di tere nag ba ca jiitu mooy añaan te añaan mooy nim ñu ko xamale ci masaalikul jinaan mooy sunu borom baaxe sa mbokkam jullit ay xéewal nga bëgg xéewal yooyu deñ xubbu zawali ni'matin an muhtadi huwa al musamma indahum bil xasadi sunu borom jox sa mbokkam jullit xéewal nga bëgg xéewal nga deñ loolu la wax ne amul solo te mooy añaan na ngeen koy moytandiku bu ñaareel ba mooy rëy te rëy itam wax nañu mooy lan mooy qul rafu nafsin ma katmil xaqi ma taaddumin wa xamtil xalqi nga yëkkati sa bopp naw ko gis dëgg mu wóor na liyee dëgg nga teg ca sa tànk ànd ak di rëy rëylu ak xeeb mi ndéefi loolu itam amul solo ndax sunu borom dafa tëkku ñi nga xamante ni dañuy rëy rëylu digleen ne itam buñ tuubut seen rëy googu ba faatu ca sawara mooy nekk seen kër yàlla nañ ci yàlla musal ñetteelu mbir mi nga xamante ni sëriñ bi mi ngi ñu koy moytandikuloo mooy xër xër nag ci poñ-poñ itam àdduna ak alal yi àdduna ba mu sa dox sa diggante ak jaamu yàlla nee na la muy jural nit ki ëllëg mooy rëcc gu mag ñeenteelu mbir mi nga xamante ni mi ngi ñuy digal ñu koy moytandiku mooy nuur ci ay bàkkaar mooy ab bàkkaar nga dëkk ca waxtu wu nekk te fas yéene woo koo tuub loola nee na la muy jural nit ki mooy màndarga ci ne nit ki dafa nar te texee di te texee di yàlla nañ ci yàlla musal moo tax bàkkaar kenn du ko xeeb lum ndaw ndaw na ko jéggulu borom bi tabaraka wa taala te rëcc ko te bañ caa dellu ni ko noonu lu baax itam kenn du ko xeeb lu mu tuuti tuuti jëf ko soo ca dëkkee rek bu yàggee nga am lu baax juróomeelu mbir mi nga xam ne mi ñu koy moytandikuloo ci dénkaane bi moom sëriñ bi mooy nay ndax nee na nay dafay jegeel nit ki sawara di ko soril aljanna te jullit la war a xante mooy lu koy jegeel aljanna ak lu koy soril sawara itam mu koy jëf waxtu wu nekk ndax mu gën a sori sawara di gën a jege aljanna te nee na nay nag day jegeel nit ki sawara di ko soril aljanna juróom lu yëf yam ñuy tere mooy li ñuy wax at taswif di waaj lu baax lu baax kenn du ko waaj su jotee rek gaawal def ko ndax nee na di waaj lu baax ak di ndi dafay tax ay yiw di la raw te jullit dafa war a njëkkante jëm ci ay yiw ndax moom lañ ko digaloon ci fas tabiqul xayraat te nee na képp koo xam ne yiw yooyu raw na ko nag te dab dabaatalu ko nee na kooko texe dina texe di goo xamante ni ak texe du ca toftalu mukk yàlla nañ ci yàlla mu wax ñu nag loo xam ne moom sëriñ bi nee na suñ ko defee danañu dimbale bañ mën a topp ndigal yi danañu dimbale itam bañ mën a moytandiku tere yi nee na la ca jiitu mooy xalaat bala ngay jëf menn mbir wala nga koy wax nga xalaat ba xam ndax li ma bëgg a jëf lu diine nangu la lum rafetlu la lum digle la te tuyaaba na ci jub juddoo nga doog koy def bu dee safaan nga mag bàyyi ko ñaareel ba itam nga daw tàyyeel ndax tawatina tàyyeel ci ak jaamu yàlla jaamu yàlla kenn du ca tàyyeel nanga daw ak tàyyeel tey gaawantu ci def lu baax ak jaamu yàlla ñetteel ba itam nee na nañ di daw di geestu mbindeef yi ci jaamu yàlla gi ngeen di jaamu yàlla na ngeen ci génne mbindeef yi te def ko rek ngir jëm yàlla tabaraka wa taala ndax ngeen mën a sori njistal ñeenteel ba ci li ñuy dimbale ci topp ndigal yooyu ak moytandiku tey mooy ñu saxoo di jàng alquran waaye di ko settantal waaye di ko jëfe juróomeel ba mooy nee na nañuy sax ci lekk lu lew ndax lekk lu lew mooy dimbale nit ki ci mu topp yàlla waaye su dee lekk lu araam nag da lay dimbale ci ngay def ay mooy yàlla juróom-benneel ba nee na nañuy muy tan moytandiku itam di toog ak ñi nga xam ne dañoo sànku te ku toog ak ñoom ñu sànkaale la ku réer te boo toogee moom mu réeraale la nee na nañuy moytandiku di toog ak ñu mel noonee ak kuréel yu mel noonee juróom-ñaareel ba ba tey ñoo ngi wax yi nga xamante ni sëriñ bi nee na buñ ko toppee mu dimbale ci defe ndigal ak moytandiku tere rawatina ndigal yooyu mu joxe woon ak tere yi mooy nga am lu la wóor cëng ci ne lépp loo yéene sa mbokk ci aw yiw ba defal ko ko wala nga waxal ko ko sunu borom dana la tibbal yiwu toll toll noonu jox la ko juróom-ñetteel ba mooy nee nañuy wàcce suñu bopp tey toroxlu ngir jëm yàlla ak doyloo li ñu yàlla wërsëgalal nag ci lu lew juróom-ñeenteel ba mooy saa suñ defee bàkkaar ñu gaaw saa suñ defee bàkkaar ñu gaaw tuub fukkeel ba mooy ñuy dimbule képp koo xamante ni dafa am aajo rawatina su fekkee lañ koy dimbulee day tax mu gën a mën a jaamu yàlla ñu dimbule ko ci loolee su fekkee suñ loraange nekku ca kon yooyu mi nga mooy yi nga xamante ni juróom-benn ndigal la woon yu sëriñ bi digle woon ak juróom-benn tere yum tere woon wax ñu itam li nga xamante ni suñ ko defee gën a mën a tënku ci ndigal ya ak yi nga xam ne itam suñ ko defee gën a mën moytandiku tere yi ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala kon mu dimbale ñu ba tënkuñu ci ndigal yi ñoo ngi koy ñaan itam mu dimbale ñu bañ gën a mën moytandiku tere yi di ñaan yàlla tam mu yàggal fi sëriñ bi te wattul ñu ko te wéral aw yaramam ba mu mottali mbooleem naalam yi yim naal ngir liggéeyal ku lislaam ak liggéeyal ko maam ju tedd ja sunu borom mën na loolu yàlla na ko def te ñu ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu إطلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم وقال تعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وزمرة المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس القرآن منبع العدالة في كل زمان ومكان وإنه لتنزيل من حكيم حميد منان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدهور وآية الأنصور كتاب الله القرآن فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائقا في الآخرة إلى الردى والنيران كيف لا وهو اللؤلؤ والمرجان ويامرنا بالبر والصلة والأمان وبالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقه والمسكين والمدارات مع الأقارب والجيران وينهى عن الفحشاء والمنكر والعصيان وفي الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وفقنا الله جميعا لمتابعة الحق حيث كان وأجارنا بفضله من متابعة النفس والهوى والشيطان آمين الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة ونعمة الأخوة في الإيمان وصيرهم بين الفرقة كالبنان والبنيان والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فيا أيها الناس إن فضيلة الصبر من أعظم الفضائل ومنزلته عند الله من أشرف المنازل ومن كان صابرا فهو المؤمن الكامل وينال ما لم تنله الأوائل وبه فتحوا البلاد وأظهر وأظهروا الإسلام وقهروا نفوسهم وصاروا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدنيا والدين فبالصبر يجد كل إنسان في موقف القيامة ما قدمه من صالح الأعمال في الديوان فيتجلى الله له فيتجلى له الله بالرحمة والحنان ثم يصب عليه الثواب والرضوان ويقول سلام عليكم طبتم يا أهل الإيمان ادخلوا الجنة بالأمان وقد رضيت عنكم بما صبرتم من الامتحان ورضي عنكم سيد ولد عدنان صلى الله عليه الكريم المنان يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah إنه يعلم الجهر allahu akbar ويعذب asalaamaaleykum